ñu jox seen bi rek sëñ bi ni Fatiha ñu laaj ko ñu doon góor waaye ñun nag góor a ñu ngi ñuy gërëm rek waaye ñun ñoo ko war a gërëm góor a ba léegi yëgagul ñu am na six fu mu fu ma war a dem ma dem ba ci biir kilifa yi soxla ma man ñoom ñi ñëpp mat nañ ma seede du ma tëb rek ni leen dem leen fee dama naan leen fu ngeen jëm am na nag ñoo xam ne su ma leen ne fu fu ngeen jëm ñu ni ma bërëb sàngam bu ko defee dama naan leen am na ñaar du ma tudd kenn ki ki ci des kenn ki laay tudd ndax moo xew la muy góor góor su ma ko nee foo jëm danaan ma fi nga jëm yàlla xam na ko luy sa programme mu ne ma yow moo tax lii nii man man nga am lu ëpp lii nangoom ak am kilifaam ak am fitam nag góor <laughs> fi mu ne fu xelam di xalaat ak fitam yéen loolu may na ko lu ne loolu engagement xam li nga bëgg moo tax kenn mënu laa teree dem ndax am nga ñaan wuy jóg te man gërëm laa kon ni

my Hallelujah.

Yeah. Bye.

waxoon naa ci vidéo góor a digal nit ñi góor a may digal nit ñi tey góor a maa lay bégal ngir jëm nañu biir waxoon naa ci vidéo ba yaay bégal nit ñi tey góor a maa lay bégal ngir jëm nañu biir waxoon naa ci vidéo ba waay bégal nit ñi góor a nekk man de yow tey maa lay bégal ngir jëm nañu biir ana ñi bëgg nañ taxaw jël nañ fi baxal ki ni Maodo amul école dafa gisul booram daara ji mooy booram dara booy mooy booram daara yi mooy booram lii moom it mooy booram mooy booram mooy booram mooy booram na dikkam maa dem tiitaani ñëw na afraako ñëw na tiitaani ñëw tiitaani ñëw tiitaani ñëw baxal ki ni Maodo amul école sagisul borom daara mooy borom limousine mooy borom aradaw mooy borom pasima jay mooy borom mooy borom mooy borom mooy borom ma dikkal ma dem jaani ñëw ci bëgg si Babacar jubal taxaw nga màggal booram leer ku ci bëgg Serigne Babacar jubal taxaw nga wayal na yónnal bi waa parcelle ñëw na waa parcelle ñëw na Gambie Gambeeru ñëw na Tijaani ñëw na Tijaani ñëw na waaye Yëmbal buum Grand Yoff ñëw na Tijaani ñëw na Tijaani ñëw na waa jeunesse Tijaan jeunesse Tijaan waa ñoo leen ñooñu maa leen moom ee eh, nii waa ñoo saba dabax ni mara waa ma fii fii la ñoo tijaani ñoo tijaani ñoo demal gunaas ba mustalifa ñetti mbaar ñoo demal tijin itata femal tali bu gasali bu man ñoo tijaani ñoo ku ci bëgg cosaan gi cosaan gi Adam ñëw New York ñëw nañu waa Paris ñëw nañu ba aan ñëw ba aan ñëw ba aan ñëw ngiraan ñëw ba aan ñëw ngiraan ngiraan ñëw na bab aan ñëw na basurakur ñëw na basurakur ñëw na basurakur ñëw na ku ci bëgg sëriñ ba fagal tugal ñu makkal yónneen bi ana yaambeen ñëw yaambeen sama yaay la yaambeen ñëw na yaambeen ñëw na waa njoobeen ñëw na ana taalibe cheikh ana taalibe cheikh ana taalibe ci tànki ana soppi Serigne Maodo si ana soppi Serigne Maodo si Serigne soppi Serigne Maodo borom xadda fat bi yal aswaaquna Muhammad fa ajabtu wal qalbu wal fi xeeraani ana ñi bëgg Serigne Maodo si daw daw baax ana ñi bëgg suñ Maodo si Daouda baax baax ana ñi bëgg suñ Abdou Aziz si Al Amin ana ñi bëgg suñ Abdou Aziz si Al Amin ana ñi bëgg suñ Abdou Aziz si Al Amin papa di eh, nga amee fukki at ak juróom nga na ma suñ Babacar woo xalalu al amina moo tax ba ma demee saal bu daan dem saal loxo ca kaw bu daan dem saal bu daan dem saal si ab to wàcc nga aka am njëriñ al amin wàcc na aka am njëriñ sëriñ abdu wàcc na aw leen sëriñ abdu wàcc bu daan dem saal di yóbbu ay yëri yóbbu camion jox ko iman ya iman seet la liggéey Abdou defar na jumaa ja Sëñ Abdou defar na kër baay Sëñ Abdou defar na sëru yëpp Sëñ Abdou mooy joxe dépense mooy jënd ordonnance ya ku feebar mu faj ku dee mu dee sëriñ Abdu Al Amin ku mu jox ndigal di nga am ndigal sëriñ Abdu Al Amin loxo ca kaw ku mu jox ndigal ee di nga am ndigal ku feebar mu faj ku dee mu di jël juddu mu ngente moo daan joxe baasi ma kay sëriñ Abdu Aziz Si wàcc na sëriñ Abdu wàcc na sëriñ Abdu wàcc na ku ko sopp ku jogal nga amee fukki at ak juróom benn la la sëñ Babacar moom mi la doxaloon am amina fokk nu ñu dem baala mbay na nu way lool mbay ba mu jiitu mbay la ko jiitu mbay dafa ànd kër gi bu jiitu ñin bu ñu jàqe mbay bu ñu jiite mbay ba kawaaya mbay bu ñu jàqe

yaa yaay sama maama xalifa maam xalifa Sidi Fa Gaye Demba ma ca jawaare so you want